ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu la notification onze billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sangu-sang yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp yéen uh, waa taskatu xabaar yi mu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di wax rek inna laay wa inna ilayhi raji'un àddina moom nii rek la kulli nafsin saayixatin mawti metti na lol mais ñu muñ loo ko suñu borom parce que nag euh, ñu fi dañ fi joggé adina mom ni rek la mu nekk nak affaire bu metti bu tiss nak man mi di wax ak yow mamu xalé bu gol mamu xalé bi gañu ni bébé bi mohammed man ma jur bayam wax dëgg mu nekk sama dom, vraiment di nekk lo xamné lu tiss lu lu lu metti metti metti metti metti metti vraiment lu metti metti metti metti ñu ñaan yalla yitt yalla na fi gëj parce que li nak mom vraiment nekk na loo xam ne ñun sénégalais yi war nañ cee taxaw veillé ci bu baax a baax a baax a baax santé daal nekk na milieu boo xam ne nii war nañu seet bu baax a baax a baax li ñuy def war nañoo seet ñi ciy dugal parce que nee naa leen ko ci dugal ku nee war nga nekk borom xol bu ubbeeku borom xol bu laab parce que métier da nga koy bëgg soo ko bëggul doo ci mën a sóobu il que ñu bëgg ko taxaw ci bu baax métier da nga koy bëgg gëm ko soo ko gëmee mën cee liggéey te it jaamu yàlla la na fekk nit ku sonn feebar nga jàppale ko wala nga soutenir ko wala nga assister ko ba mu wér wala nga jàppale ko ci euh, moralement physiquement kooku nit mënu laa fay yàlla moo lay fay kon nag ñun dañu war a taxaw ndax ay jullit lañu dëkk bi dafa nekk euh, dëkk jullit ñun nous sommes presque quatre quinze pour cent des musulmans kon nag war nañu taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal it baayam yal na ko yàlla may xol bu muñ man maay maamam yaayam làqu barki Demba Ndiaye ñu sarxal ko juróom-ñetti fan tudd xale bi tuddee ko Mouhamed Gueye Mouhamed Ramata Gueye di nuyu yit ñi nga xam ne ni def nañ ci ay jéego muy autorité yi di di gërëm ñëpp daal di gërëm it président Macky Sall ndax ñi mu fi yebal ñëpp taxaw nañ seen taxawaay ñi ngi def seen liggéey yal na yàlla fay ñëpp. fii la accouché fii la gaañoo wax dëgg yàlla bi mu ñëwee wax dëgg yàlla taxaw nañ ko li ñu mën def nañ ko seen seen maximum def nañ ko pour mu sauver mais yàlla moo weddi yàlla nag kenn mënu xëccoog moom. parce que moo ñu fi indi moo ñu jëlaat loolu daal moo fi xew kullu nafsin saa yi xatin mawti bakken bu ñam dund di nga ñam dee yal na yàlla defal ñu jàmm ñu ñëpp jërë ngeen jëf. ngir gën a a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.